Momath Cissé maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. alors ngay vice président wu ASCOSEN muy kuréel gi ëmb consommateur yi nekk fii ci Sénégal tey nag ñuy màggal li nga xam te ne mooy ak yelleefu consommateur yi mu mel ni euh, tey laaj gi samp mooy na xam ngeen yéen seen ak yelleef. waaw xam nañ ko ndax ñun ñoo constitué wu ne dañuy défendre consommateur yi te consommateur dañu am ay droit mun nañ ci wax droit à l'information droit à la sécurité droit à être présent au conseil d'administration là où les décisions se prennent droit à un environnement sain droit yi bëri na obligation yi bëri na xam nañ ko te ñu ngi sensibiliser suñuy membre ba nga xam ne mën nañ koo jëfandikoo parce que suñu credo ci association ASCOSEN mooy informer éduquer ak sensibiliser. waaye fi mu toll nii est-ce que yéen a ngi jouer réellement seen rôle ngir rek ñoom tamit ñi nga xamante ne ay consommateurs lañ ñu xam ñoom tamit lan moo ci seen ak ak yelleef fa waaw ñu ngi koy jéem mais comme amuñu moyen dañuy def rekk ngir yàlla tax moo tax am na ay limites ndaxte. bu fekkoon ne tey jii dañu am subvention danañ ko gën a mën comme subvention yi nga xam ne journalistes yi état mu leen koy jox mais association défense de consommateur neutralité daf ci am solo moo tax mënuñu jël xaalis fu nekk par exemple opérateur je donne un exemple opérateur téléphonique warul mun a jox association défense consommateur xaalis parce que bu waa da koy xool loo fu ko neex parce que tubaab moo wax ne ci pay commande mais nag comme à l'image des journalistes yéen yéen a ngi garder seen neutralité seen objectivité ñun itam wax dëgg yàlla mun nañu garder suñu neutralité bu ñu amoon subvention yoo xam ne moo ñëw ci état bi hmm. bu boobaa dinañ mën a gën a sensibiliser éduquer informer population bi parce que si la ñuy gën a mën a déployer. alors lan la ñu war a mën a def rek ngir mën a permettre tamit ñoom consommateurs yi ñu mën a exercer seen droit ci ni mu waree. waaw pour ñu mën a exercer seen droit ni mu waree mooy premièrement réglementation bi nga xam ne moom moo lay permettre nga exercer ses droits nga xam ko te loolu. maa ngi jaar ci sensibilisation yi gannaaw bu ñi nga xam ne ñoo leen défendre ñu xam texte yi sensibiliser leen te ñu fexe di ko jëfandikoo te bu ñu ko jëfandikoowul sur le terrain contrôle bi nga xam ne moom la ministère yi di war a am ñu daal di ko def bu ñu ko deful ku ko ci deful ñu war a sa ndigg ba nga mën a def li nga xam ne moom la yoon santaan alors ñoo ngi ci weeru koor nag te ku ne euh, weeru koor xam ne fi mu toll ni marché yi ku ci nekk da ngay dem di ndugg ji euh, waaye yokkute dundin gi nag la askan gi ñu ci bëri di ñaawlu jamono ji lan rek la war a mën a def euh, ngir mën a juge ci lu ni mel li ñu waroon a def dañ ko romb fii ci Sénégal dañuy gérer rek situation yi mais bu fekkoon ne tey la ñuy jëggaani yëpp dañ ko yore fii ci senegal bi bayee ñun la ñuy lekk muy lañuy ñuy bayee fii kon du ñu am problème bi ñu am ci weeru koor ndax problème bi mën nañ ci wax ñaar yëpp ceeb bi nga xam ne moom la ñu jëggaani bitim réew prix cher na cher boo xam ne jéggi na dayoo suukar si nga xam ne moom la jëggaani bitim réew cher na cher boo xam ne jégg na dayoo bien que compagnie supérieure bi sax mu ngi fi mais li muy li muy jox moo doyoo donc dañu war a fexe toujours lépp lu ñuy importer mën nañ ko bayee fii ci Sénégal. alors mu mel ni tamit euh, jëmul rekk ci lekk beeg naan bi waaye wàllum électricité ba ci sax ndox mi nga xam te ne moom lañuy ñuy jëfandikoo. électricité bi am na augmentation bu jéggi dayoo. boo xam ne bu tàngoor wi ñëwee consommateur bi dafay yëpp mais loolu yëpp parce que pétrole bi ak gaz bi nga xam ne moo feeñ senegal produire guñ ko te ragal naa ne buñ ko demee ba di ko produire bu boobaa courant bi dana mën a wàññeeku li waral nag mu yokk woon dafa amoon ay facteurs yoo xam ne bitim réew la jógee comme carburant bi gasoil bi nga xam ne moom la ñuy utiliser bu yokkoo rek variation boobu dafay yokk. mu mel ni tamit bëri na ay jafe-jafe yoo xam te ne xëy na ñoo ngi koy jànkonteel mais rawatina état wu Sénégal gis nañ ne diggoon na ne dina accompagner ministère du commerce jëm rek ci contrôle waaye tamit respect bi jëm ci wàllum réglementation ndax gis ngeen yokkute ci wàllu boobu. Eh, waxoon nañ ne dinañ joxe mille volontaires de la consommation journée nit yoo xam ne ñooy accompagner yi nga xam ne ñoo nekk ci terrain mais junne yooyu gannaaw bi ñu ko recruté ba pare te ñu ngi félicité ministère du du commerce def na li nga xam ne moom lañ ko santaan mais def leen wax ñu identifier point yi nga xam ne mooy point de vente léegi nag période ramadan bi ñaan nañ ko mu déployé sept cent quarante trois yi nga xam ne moo nekk région de Dakar ak yi nga xam ne moo des ci mille yi nekk ci à travers Sénégal ñu accompagner port le contrôle yi ñu seet një saytu njëg yi nga xam ne commerçant yi ñu koy respecté ko ci respecté wu ñu rax sa liggéey parce que fu mu nekk nii loolu moom la situation bi laal. li jëm ba tey ci réglementation boobu wax na euh, ne consommateur bi war na mën a xam tamit euh, li nga xam te ne mooy affichage wu prix yi euh, lan lañ ci mën a jàpp ci wàll boobu. liñ ci mën a jàpp suñu tool nii mooy boo ñëwee ci grande surface wala point de vente yi nga xam ne dañuy organiser boo demee ñoom danañ affiche seen prix da fa gis composition même produit mais nag secteur informel bi dafa am doole trop fii ci Sénégal ñooñu nag affiché wuñ benn prix produit yi ñuy jaay composition bi feeñu fi mais ñu ñaan rek que fi nu toll nii comme Sénégal émergent la ñoom itam ñu gën a formalisé wu. alors li jëm ci produit importés yi nag euh, tey jii bu fekkee ni amul variation ci euh, dëkk gi mu jóge ndax mën na am changement yi tamit euh, ci wàllum encadrement wu njëg li. bépp prix boo xam ne dañ koy fixé muy homologation dafa am nuñ koy defee maanaam commerçant bi importé dañuy xam la muy jëndee xam frais yépp lam koy dikk ak marge bi nga xam ne moom la ci am moo tax ñuy fixer prix bi bu fekkee ne nag variation amut fa koy jëndee comme variation ci prix bi nga xam ne moom lañu homologué warul am Sénégal parce que tant que amul variation prix bi ñu homologué warul changer wala commerçant bu ko changer bu ñu la contrôler jàpp la mu mel ni tamit euh, jigéen ñi ñu ci bëri gis nañ ne ci marché bi euh, ñoom euh, li nga xam te ne mooy soble importé bi moom la ñu gën a taamu que local bi loolu yi mu mel ni ci qualité bi tamit la. waaw ci qualité bi la parce que client bi dafa am droit au choix. Mmh. mais droit au choix parfois politique agricole da koy day tax du ko am. ndax bu ñuy wax ne tey soble local rek moo fi nekk wala soble euh, wala pompiteer local rek moo fi nekk booba gouvernement bi waxtaan naag producteurs yi waxtaan naag commerçant yi waxtaan ak association consommateur yi mais qualité moom processus la que boo xoolee ci at ca gannaaw soble see pompiteer bi quand si fi nekk nii qualité bi ñëw na mais nag àggagul qualité bi nga xam ne moom la ñuy produit yi nga xam ne moom ñu parce que jumtukaay yi ñoo manqué. alors produits locaux yi tamit est-ce que waruñu koo gën a may valeur. war nañ koo gën a may valeur parce que euh, emballage ñu ngi commencé di ko soppi par vingt cinq kilos alors que quarante kilos quatre vingt kilos moo daan ñëw calibrage muy pompiteer bi boo xoolee amélioré woon loolu moo koy may valeur et que agro business bi nga xam ne moo fi nekk. tiire na qualité bi vers le haut parce que lu ñuy wax rek wujj moom daat wu dëng rek la mënta génne ci ci ci ci wujjam euh, agrobusiness fu mu toll nii nag consommateurs yi ana lan la ñu war gën a soxla jamono ji lu ñu soxla mooy réglementation te réglementation buñ ko xasee ba def acteurs yi décision bi nga xam ne moom lañ am te ñëpp d'accord ci buñ ñëwee ci terrain bi nañ ko respecté Mhm. waaye gis nañ ne Sénégal lépp lu ñu wax muy bailleur muy euh, jaaykat dañuy indi waxtaan bu juboo mais buñ demee ci application bi poser problème gis nañ ko ci gaz bi léegi bonbon de gaz da nga koy am bu ko changé doo ko mën te pourtant arrêté ministériel bi dafa exiger ne est-ce que euh, euh, de dafa war a am gis nañ ko ci depuis concertation nationale yi yëpp décision yi ñu jël bu ñëwee ci terrain bi rek am ñu ko jalgati. Momar Cissé jërëjëf may fàttali rek ne yow yaay vice président wu seen muy kuréel gi ëmb consommateur yi nekk fii ci Sénégal ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf maa la sant. bu baax jërëjëf.